dogu leen dafa ñëw ak feem yu bees non non yaaya yaay yaaya daa yaaya mooy kay yaaya daa bàyyi wee yëpp na nett ci jàmm mais weeyu kooy man xaw ma tax weeyu kooy kenn du nett ci jàmm damaa tiifu tiifu man daay tax mais kooyam dee dudd weeyu kooy gi daa dudd dudd dudd yoo xamante ne heure bi daa mel ni yeeyaan kii ah, heure bi da yeeyaan kooy naa def maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm tey eh, waaw <laughs> imaam na mu naaya. maa yore raw. aywa imaam mi ngi nii waay. maa yaa ngi si jàmm. jëm. ci loolu ne. maa ngi nii. yaa ngi noonu. maa ngi nii yéen. <laughs> di tataya. waaw maa ngi nii di tataya yéen. Ah. <laughs> imaam tawa. sant yàlla. datan na def. sant yàlla man datan na def. non booy sant yàlla. alhamdulilah sant yàlla imaam yow man dama yaa fan. Ah. imaam xam nga yéen moo tax ma fan ya. Mm-hmm. Eh. koor gi. Mm. ni ngay jiitee naaf yi. Mm. naafile bi ni nga koy doxalee ni muy daawee ni muy yàppitee. Mhm. deux yàkka nga ñuy dooy daal ne ba tubaab jàmm wasa yàlla. xam nga lu waral loolam. man imaamu moderne laa. <laughs> bokk maag imaam yi nga xamante ni ay traditionnel dañuy jël seen aaya yi ko yóbbu ko ba ba ñaajo man dama koy biibal yu ndaw yi yaaya tax moo yaaya tax moo njëkk ne diine ji mettiwul yàlla dafa gaaw a tax ñuy gaaw a ñëw ah. <laughs> <laughs> waaw waxuma loolu an ah, anal sa baay xaay bi ci topp mooy imaam li dina tax yi dina tax ma faaya mooy keyoo kii bi ngeen ñëwee fii jëy payaatu ndaway bi te payaatu yee waaw waaw imam yi ma gën a faaye mooy bi ngay taasay sa bopp naan soosay ma fii <laughs> ndax xam nga lu sax imam ma tiit ne la soosay ma fii waay ah? danga may respecté eh. ñu waxtaan munoo maa respecté nga wan ma sa baay ma dem wax ak sa baay dé du xam nga lu taxoon ma def loolu ndawal ci weeru koor dafa baax ci mag te sa baay daa sàcc sunu xaalis waaw. muniti bi waaw. sa bàyyi jël sunu larsan. waaw muniti bi waaw jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. papa am na booy booy mat tëtt nag booy booy boo xamante ni xam fu mu koy waxee. man yii du ma ko fette yii xaaral ma wax ne yii ma dem ci sama daay te ñëwaat. maa nijaay. lan la nijaay dama bëggoon nag ñu waxtaan ci biir cent mille bi. sama yoon nekkul si. aa ah! xanaa juróom ko. ba si lan. nii mu mel duñ ci jóg. nu mu mel nii. ah xam fan laa jëm ak moom fu mu mel ah. nii. dama koy génne kër gi. Jean Michel génn kër gi. waaw ndax man Rama Thiam man mënu ma nekk ci kër gi. Jean Michel nekk fi doon Gensman man damay romb sax ñu naan ma chef de quartier doomu Gensman bi moom moo jur doomu Gensman man man de mérite naa loolu mérite naa loolu dama lay laaj dëgg mérite naa ko. Diop mérite woo ko waaye nag. li tax nga génne ma. si biti la jëm man maa la ko wax daa mi seet dootul fanaan si biir kër gi si biti la jëm du fi fanaan du ma ko may. Ndiaye. boo sànnee sànni sànni. maaleykum salaam maaleykum salaam. maa yéene nga ci jàmm. alhamdulilah. la santé. alhamdulilah. tout va bien. waaw jaajëf. alhamdulilah. maa ngi si jàmm. ñoo ngi sa jàmm. oui ma. Ah, jërëjëf. waa quartier bi ma yóbbante woon ci yow. lii. yëpp ay convocation la. convocation wu la déglu rek. Serigne Seck fi Moussa le maire bàyyi nga ne mu tag moom ak sa waa kër moo tax quartier bi yëpp dajaloo dem ba dig convoqué la te yéen si gën a rëy jàppal man yaa faale waa quartier wala waa quartier faale wala jàppal nii rek teen naan déet bu njëkk nag chef de quartier la ko doon jox waaye tey imaamu ko indi ma bëgg nag fer ferfere yaa xayu yaa xayum yaa sal salaali wal ikram ñu def ko ci jàmm déglu rek léegi nag dund gi la ñuy coow ngir yàlla warul suuli lii la Moussa jox jox nu si yow yow yo bu ma lay seet dama laa ne naa fekk nga imaam naa fekk nga ah ndax yow fii nga keroog bañ toog imaam nga laal laalo ah waaye ah, te yow boobu est-ce que ay si yàq yi de sa poche moo ko def. waaw loolu lan la ko may. man man nag Moussa Mère daf maa mayul dara yónneewul dara message wu dara depuis jour boobu ba mu ko waxee ba léegi dara dikkul sama biir ka njëriñ la ngeen ma convoqué ak ma police. la xam ba amoon. Ah. bi ngeen bi mu toogee fi waaw dige. keroog boobu la gëj sax. Euh, wallaahi si lañ ko a teg bët. waaw loolu xam benn affaire. waaw gis nga seen convocation yi. Hmm. man faalewu ma leen. i bu la demoon ngeen dem ba cour de la Haye. i faalewu ma leen. Eh. dem leen fa mbaxana doole benn faalewu ma leen. yow dem leen si procureur général. faalewu ma leen. nijaay man c'est pas peur de vous. nijaay ah, baax nijaay xam nga lu solal sa dàll bi dem jàkkaarloog meer wax ak moom te bëgg naa sax booy dem jëlal kenn ci koñ bi àndandoog moom na nekk moom mi ñëw. Eh, eh, eh, man mii. man nga mu pour. yaa ah. ah ko njëkk xam nga. baal ma ci rek. li ma si gën a soob xam nga la. Ah. mooy génération imam yi bees yii ñoom duñu lijjanti seen problème problème mu jàmm. Eh, tàccu na sànq waxaan na. dama xam ne ah. imam ak tàccu. ma ne waaw. convocation man li ma ne bu faal. bu ma ko suul woon dama. ah ah moom kay tegal foofu rek. ah tey jii moom mu damay. waaw ah, moom nag suukaru koor sax duñ ko joxe moom bu ma joxoon dinañ koor moom gën a moom dinañ koor moom gën a fuuf mooy puukar rek lañ jox puukar ñëpp a jabet koo mu mer koo joxum joxum joxum joxum dañuy joxe xorom ñëpp a jabet ñëpp ñëpp a jabet man noonu la ah loolu la jox nga ne ko mu tag say jaboot ba ba ah imaam naka bàyyi salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. aleyhi salaam. waaw waaw waaw dégg nga man. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatulah. imam dama demal taala wa barakaatu. ah taala wa barakaatu. eh imam nit ku la nuyoo nuyoo bu gàtt nga fay ko nuyoo bu gàtt mu nuyoo nuyoo bu gudd nga fay ko nuyoo nuyoo bu gudd. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaw booy ma waaw. yaa bay li ngay xeeñ ni xanaa peinture kan nga wala lu mu. non non non docteur la damay faj. ah yow kay booy da ngay faj. alcool mooy xeeñ. waaw alcool ba fa yóbbu góor yi. waaw alcool ba fa yóbbu góor yi mooy xeeñ quoi. dëgg la kay. imam. waaw ah. li ma wax yëpp dëgg naa ko si kër gi. waaw. paa bi xool xaar xaar ma toog ma xoolal. waaw. ah il a il a. xaar ma toog ma xoolal. ah léegi paa bi. Mm-hmm. chaque jour ma may lire message bi chaque jour ngo ngoon ma may lire message bi. waaw boo demee reçu huit cent mille. yaa ngi dégg. waaw moom moom chaque jour mu ne ma lu ma yónnee ma xool ne nga waaw am ñëw na. dëgg la dëgg la. ñëw na. Mm-hmm. saako ceeb bi. Mm-hmm. maa ko yenn. waaw chaque jour man maa ngi jël saako ceeb bi yàlla ko tegu fi doo si <laughs> waay. dëgg la. des dara du li nga wax yëpp noonu la demee. wax naa ko sa baay nag nee loolu amul kan damaa bëgg nag. wax naa Diop Diop Diop Diop. aw si fa kaay kaay kaay woote yàlla moo gën bu nit. werante xuuxaan tekki tubay. imaam respecté naa la ah déglu rek déglu rek. da nga koy wax. waaw wuy ma nettali ci gémmiñu borom la dàkkee. li ma wax léegi. wax ko sa mu dégg antaan bi. waaw ah, jënd après mu waxal la. déedéet li sa baay yor la ñuy bu bari. jox la ngay jënd rek yow. <laughs> Eh, billahi waxa rek. ma waxaat. waxaatal. Oh, ma waxaat. waaye waxal lii moom waxal sa dégg. bu ma laal waxal te bu waxal sa dégg. chaque jour. waaw man maa ngi leen message am. xool. waaw vous avez reçu. oui ça. mille. francs CFA. des fois saako ceeb. maa koy yenu. dugal ci biir. waaw des maa koy yenu. waaw jox borom bitig mu jaay ko. ku doon faa la ngoy gi. kii mooy ngoy. di déglu rek. waaw. wax naa la ko ci biir nga ne ma dee. monsieur le maire yónnee wu. ngir yàlla. ngir yàlla war a suuli. dimbali nu. wallaay loolu dimbali ngir yàlla. ay waay daw déglu rek. ay waay dawloo naan ni yow. yorunu. sa drapeau bii. ñun ñoo la fal. Hmm, waaw. du dëgg. bu nag yaakaar naa tax. bu dee la jox nga ma wuy ma. bis ni ki ngir yàlla war a suul bu mu dajee si sax nan déforcé. man dama la taxul woon. waaw waaw nan déforcé. ba tey waaw kii bu fekkee waxam ngay dégg ma xam ne dóor nga solo. sama jàkka bul fa julleet. ah jàkka yàlla la moo ko. sa joxoñ bii. man ma toj. man ma toj. xamoo. yow kuti. kii moom mun a fay. kii mu ne ma maa ko wax léegi. oh kii fenkat la moom bàyyi naa imaam bi loolu ma dundee ci maam kii fenkat la nee na mu ma wax mooy kii moom mun a fen fet jëlal sa bosam bosam non non kii daa mën a fet fenam ak sa fen muy hmm. duul ma wax mu wóor pour damay duul xoolal noppi man dootuma dulee sans Michel man yi ngay def nii man xam naa ne moo lay wax li ma doon wax la ma caam si biir fee mu may bañ a dégg lii la parce que doo nekk si biir kër gi naru ne ma fenal jaxasama ak àdduna bu ma génne ñu bañ a ma wala ñu wax mu lu ma naqari ndekete yow yaa may fenal nekk fii nga naan daw huit cent man man fan ma jotee huit cent mille. imam Fallou Diba moo ma jiite man kii si imam par naa si kii imam kii daa mën a fay. Fallou Diba rek bu dul Fallou Diba kenn bu fi dugg ci. fi dugg ci. soxla ma ko désiré fii man maay fay yow fayoo. yow ba nga yor yow sàcc nga woon ñu jàppale yóbbu police. xanaa tey nga génn mel nii ndax sa bon a tax. man nag du ma dëkk ka bon. Eh, weeru koor laa nekk yërmande amoon naa ko si yow tuuti waaye yërmande bi jeex na kom nag may fenal ah. kër gi moom c'est fini pour toi. moom diggante yàlla bu fekkee fen naa yàlla tàpp ma xol ma tàpp téere maam jox la eh, yow man dama fen yow yow fenal la jàpp ba ngay lox xam nga wax dëgg li wax dëgg moom boo ko doon lox doo lox amul 200 nga xool kan ma la ah 200 ma jot sa ay hey waa Sénégal ndogu leen dafa ak feem yu